waaw mais avant tout sant yàlla bu baax a baax di sant sama xarit yëpp di sant waa Géejawaay di sant euh, ñi nga xamante ne tey euh, samay nit lañ samay am di jàmm lañ maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu sama doom nday Alioune Seye 2 mi nga xam ne sama lépp la koo xamante buñ ne la dëgg yàlla Alioune Seye 2 kon donc moom dañ koy sant baax ñaanu ko yàlla yàlla guddal fanam. yàlla yokk ko bés bi nga xam ne ci jëm tamit yàlla defal ko ci ndam ci kàttanu yàlla mu nekk nit ku baax waaw nit ku gore mu nekk sama nit nekk sama lépp euh, di sant ki nga xamante ne defe naa boo daan géejiwaay ne guy gi euh, guy gi maanaam nit bu xolam rafetee rek dama koy wax xolam rafet na gore na tabe na euh, maa ngi moom ñu séq jàmm mu nekk nit ku baax ma xewle yëgati sama portable woo ko mu teew bàyyi yitteem yëpp kon donc guy gi yàlla rek laa ko mën a bàyyeel mun ma ko bàyyee kenn ku dul yàlla suñ boroom ci bës bi mu jëm nii yàlla dafa ko ci ndam lu rëy mu nekk sama waay nekk sama lépp barki sëriñ Babacar Si bu ñuy wër gor nañ daw ñëw jàpp guy gi waaw sama waay la sama xarit la waaw kontaan naa ci moom trop vraiment di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla bàyyi ak soxnaam bàyyi ko ak famille am ci barki Seydina Mohamed ma waxaat encore ci combat bi mu jëm yàlla na ko ci yàlla may ndam ndam bu sedd guy loolu maa ko ñaanal di nuyu tamit kii nga xam mooy fiis Fils de la dem naa ne Fils de Balla jarul sax may wax ay waxam di ci sori parce que euh, Fils de Balla sama lépp la sama waay la sama xarit la sama rakk la euh, yaayam di nit ku baax waajuram bu góor tamit waxi noppi man nag suma koy sant fii fii laay fanaan kon ñaanal ko rek la am yal na ko yàlla defal jàmm. mënuñoo xam Lac de Guiers ban affinité la am ak mbër mu xewle ñoom ñëpp ñëw teew bàyyi li ñëpp luñ doon def ñëw waaw wuyu ko ci bësam bi. waaw mais sant yàlla ñëpp laa seqal jàmm defe naa ba ma seqaloon moom ñoom jàmm doo fi gis guy gi doo fi gis mbër yi doo fi bu guy gi ñëwee Alioune Seye 2 ñëw Fils ñëw ñëpp ñëw nañ mbër yëpp ñëw nañ yaa ngi dégg ñoom buy ñëwee rek mbër yëpp ñëw nañ. damay jël nuyoo bi teg ko ci loxo Madji Madji defe naa bu ma ko tegee ci loxo Madji Madji teg naa ko ci loxo ñëpp euh, ma sant Igir Waalo bu baax a baax di nuyu sama rakk sama xarit Madji Madji moom tamit euh, yëkkati sama portable woo ko téléphone wax ko ko mu teew sama bés kon donc maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu Mathia sama rakk ah di nuyu Dund. sama rakk yooyu noonu awma ma seen fay mais yàlla na yàlla fay képp koo xam ne teew na fii yaa ngi dégg ah aw seen fay ah vraiment mais yàlla rek laa leen di bàyyal ñu nekk samay gaay yu baax samay nit yu baax ñoom ñoo teew fii sama yaay yi sama papa yi mais tamit di baalu àq waa cité bi di baalu àq képp koo xam ne teew nga ci sama bés bii nii parce que kenn ku nekk mënoo nga dem doxi beneen yitte mais da bàyyi si lépp ñëw teew. kon donc ñu ngi baalu àq ñëpp di baalu àq leen di baalu àq di leen coono baax a baax metti na. ku xam la de guerre xam Balla xam nga tey euh, di nga toog benn moment boo xam ne ngay nekk ci yenn yitte yi mais déggante nañ. woo sa ko. xam woo naa ko sama téléphone. waa si woo naa ko. woo naa ko téléphone. envoyé naa ko message vocal. woo naa envoyé naa ko message vocal yaa ngi dégg mais nag du tout le temps ñëpp mooy am temps ñii dañuy am temps ñii duñu am temps yaa ngi dégg mais lépp rafet na déggoo ma la ba guy gi teewee la lépp ëmb guy gi ba mu teewee la lépp ëmb Alioune Seye 2 bu ñu nee Alioune Seye 2 xam nga ne moom ma la wax géejawaay parce que moom moom fu xootee ko mu jël pusoom ñaw kon donc dégguma la ñaan yi bu ñu teewee rek mel ni géej waaye ñëpp teew nañ yaa ngi am ci mbégte gis leen sant leen gërëm leen waa ñu ngi ñaan daal lii nga xamante ne tey moo fi teewloo ñëpp yàlla na fi ñëpp jóge ak xol bu sedd guy waaw. jaajëfal la dëgg di sant bu baax a baax samay xarit naka ñëpp ñu sonn ci bés bi yépp ñu ngi sant ñëpp di sant sama mbokk soosey di sant sama côté jabar lébuy maa ngi sant ñëpp nga sama soxna lébu la maa ngi sant lébu yëpp ñi ma gis ñi ma gisul yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm presse bi nag vraiment kontaan naa ci ñoom parce que tey ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw teew kon donc ñun amuñu fayu presse bi ak lu métti métti métti métti dinañ bàyyi seen yitte ñëw teew kon donc presse bi dañ leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax di leen ñaan yàlla yàlla na leen yàlla yokk képp ku téye micron tàllal ko Lac de Guiers 2 nga yor sa caméra daal di filmer Lac de Guiers numéro 2 yal na la yàlla yokk ci barke Seydina vraiment kontaan naa trop maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup.